bi ñuy dugg ci Thiès ba fi ñuy wax ak yéen mi ngi taw waaye ku ci nekk ci yéen da bàyyi sa lépp ñëw pour teeruñu pour tatagal ñu pour war ñu ne ñun ak yéen benn lañu ñoo bokk liggéey bi ñoo bokk bëgg-bëgg mooy defar Sénégal dina wax ci loolu mu ci kanamee waaye balaa booba dama bëggoon nuyu. Alassane Kanté ngeen tàccul ma bu baakha a baax Alassane maa ngi lay féliciter ci mobilisation bi ci engagement bi ak lépp loo xam ne tey jii depuis une semaine yaa ngi koy dox di ko wax pour que manifestation bi am taar bi taaru tey kon nag maa ngi lay féliciter te dégg naa sa message waaye li Ahmed wax rek laa lay waxal politique rien ne se donne en politique buñ la joxul it nga te tey jii da nga mel ni da ngaa fokkarti kon nag maa ngi lay félicité may wax ne tey jii lii nga xam ne moo am Thiès dalal na suñu xel ndaxte dix mille parrains yi ngeen ma jox tax na ba région de Thiès qualifié naa ko ci parrainage bi te xam naa ne yamul foofu parce que parrainage bi commencé gul le 27 septembre lay commencé. waaye da ngeen maa woo fii ne ma tey jox nañ leen suñu 10 000 bare dañu continuer liggéey bi ba le 27 septembre bi ñu commencé di nga xam ne waa Thiès taxaw nañu pour ànd ak yow jàppale la pour nga jël réew mi kon nag sama xol sedd na kontaan na noonu nu la ko wax Kaolack defee dimanche passé bu ñu demee Kaolack ci tàng-tàng bi jox nañu ma 5000 parrain ne ma aussi ñoom it liggéey bi dañ ko continuer liggéey ba yàlla def région de Kaolack aussi déjà qualifié nañ ko tey ji ñu qualifié région de Thiès te gëm naa ne tournée bi nga xam ne dañ koy def au niveau national ci parrainage bi te ñu commencé ko Kaolack bi ngeen passé jàpp nañu ne 14 régions yépp bu neexee yàlla daañu ñu parrainé ñu ànd liggéey xeex bu Sénégal waaye xam ngeen ne cérémonie bi lu mu neex neex neex engagement bi lu mu bëri bëri bëri détermination bi lu mu bëri bëri mënuñu ñàkk bañ a xalaat suñu rek suñu xarit le président Ousmane Sonko ñëpp xam nañ ne tey jii ci Sénégal ne mi ngi dund moment yoo xam ne ni yu métti la ñu koy wax rek ne moom xam na ñun xam na xam nañu Ousmane Sonko xam na man Malick Gakou xam naa xam naa fi ma ko toll waaye moom it xam na fi ma ko toll waaye man it xam naa fi ma toll yàlla dafa def Ousmane Sonko nekk suma rak nekk suma xarit yaakaar naa ne ci politique ci politique ci opposition kim ci gën a yàggal man la ndax depuis 2015 ñu ngi ànd bokk ndey bokk bàyyi bokk xalaat ci Sénégal mu def ma mag ma def ko rek kon nag Ousmane Sonko bu nekkee ci jamono yu mel nii man maa war a jëkk a jóg te maa jëkk a jóg. bu nekkee ci jamono yu mel nii maa njëkk a wax te maa war a wax bu nekkee ci jamono yu mel nii man maa ko war a njëkk a wax ne Ousmane démb ak barki démb ak suba ñu ngi ànd ak yow pour xeex Sénégal nekk Sénégal dëkku démocratie ak dëkku liberté. kon nag ce message de solidarité la dama bëggoon àdduna bi yëpp dégg ko ñu xam ne Ousmane Sonko ak Malick Gakou benn lañu maa ngi koy ñaanal yàlla génne ko ci lii mu nekk mu dellu si njabootam taxaw gën a liggéey pour Sénégal. ak yaakaar bi nga xam ne ni moom la Sénégal yi am ci moom yàlla na ko yàlla mootali li ci des nag mooy mbooloo mi may wax ne fii ma ñëw tey muy région de Thiès dafa nekk région boo xam ne nii dafa am importance ndaxte xam ngeen ne barki démb rek dégg ngeen ne Fass Boy gii rek lu mat cent vingt citoyens sénégalais dugg nañ ci gaal ne dañuy dem Europe. ba la ca xew xew ca te loolu li mu wane mooy région de Thiès bu ñu ko liggéeyoon liggéey bi ñu ko war a liggéey benn xale di jóge Thiès naan da ngay dem ci géej ndaxte région de Thiès bu ñu ko développé au niveau de la pêche développé ko au niveau industriel développe ko au niveau de l' développe ko au niveau ferroviaire la région de Thiès dafa nekk région boo xam ne nii bu neex a dund lay nekk te kenn du fi jóge di dem di wàlliwaan yi c'est pourquoi ci programme que nga avons ne pour te ko ci loxo sénégalais durant la campagne électorale pour les élections présidentielles du 25 février 2024 dama xaatim bu baax ne région de Thiès pour un hub de développement industriel agricole et sylvopastoral te loolu bu ko defee dina tax xale yi am liggéey jigéen ñi mën am ci ba région de Thiès du ñee kenn loolu mooy li nga xam ne nii yaakaar ne bu ko defee région de Thiès war jël place am ci réew mi ndaxte Thiès nag ku ko wax wax chemin de fer Thiès ku wax war wax industrie Thiès ku wax wax agriculture Thiès ku wax war wax pêche Thiès ku wax war wax développement économique et social kon nag li nga xam ne nii moom la ci grand parti mooy fexe ba région de Thiès nekk une région exemplaire nekk région bo xamné ni, li nga xamné ni mom moy tradition agricole dina fi dox mbay mi dox fi napp bi dox fi sam bi dox fi ñom luñu jappalé ñu ñi yi mag ak ndaw pour que Thiès jëm kanam té loolu am solo la parce que loolu la Thiès mérité ci Sénégal c'est la raison pour laquelle je voudrais ici et maintenant dire combien il me plaît de ne aucun effort afin qu'au soir des élections présidentielles du 25 février 2024, après notre victoire, de faire de la région de Thiès un hub industriel, un hub de développement agricole, un hub de développement pour la pêche et également un hub de développement pastoral La région de Thiès est au cœur du Sénégal. Thiès est le cœur du Sénégal. Qui développe Thiès développe le Sénégal. C'est pourquoi Il nous plaît de dire ici et maintenant, nous allons faire du développement de la région de Thiès l'une des priorités de notre politique de développement économique et social pour le Sénégal. Oui, la jeunesse du Sénégal, elle est désœuvrée. Oui, la jeunesse du Sénégal est traversée par le désespoir. Oui, la jeunesse du Sénégal, elle est inquiète par rapport aux perspectives de développement économique et social de notre pays. C'est la raison pour laquelle nous n'allons ménager aucun effort dans le cadre de notre projet programme pour le développement du Sénégal afin que les jeunes puissent trouver de l'emploi et rester dans le pays. Les jeunes doivent trouver de l'emploi pour rester dans leur pays. Les jeunes doivent avoir de l'emploi pour rester dans leur pays. Comment on peut bâtir le Sénégal sans donner de l'espoir à la jeunesse Il est impossible de bâtir le Sénégal sans donner de l'espoir à la jeunesse. Il est impossible de bâtir le Sénégal. sans donner de l'espoir aux femmes du Sénégal. C'est la raison pour laquelle je suis satisfait et content de voir dans cette salle que les femmes et les jeunes sont majoritaires. Vive les femmes du Sénégal Vive la jeunesse du Sénégal Et le grand parti sera le parti qui va traduire en acte l'ensemble des volontés voulues par la jeunesse et les femmes pour amorcer le développement économique et social de notre pays afin que nul jeune sénégalais ne puisse penser à enjamber la mer pour aller dans le cadre de l'immigration clandestine. Nous allons mettre fin à l'immigration clandestine, puisque si les jeunes trouvent de l'espoir dans leur pays, si les jeunes trouvent de l'emploi dans leur pays, si les jeunes trouvent les moyens de régler les conditions de vie appropriées dans leur pays, si nous renforçons le bien-être social dans notre pays, si nous avons une croissance inclusive qui sert aux populations, la jeunesse sénégalaise ne va aller nulle part s'embarrasser au Sénégal pour reconstruire le Sénégal et donner au Sénégal les moyens d'avoir une économie à la hauteur de notre ambition lii laa waxoon ne tey jii daa leen ko wax ci Thiès Alassane encore une fois maa ngi leen di gërëm di leen sant di wax ne sama xol directeur de campagne je crois que sa xol sedd na yàgg délégation bi ñu àndal la région de Thiès vive de Thiès maa ngi leen di gërëm di leen